alhamdulilah alhamdulilah alhamdulilah bismillahi rahmaani rahim الفصل الثاني في ذكر فضيلته صلى الله عليه وسلم بطيب مولده وحسبه ونسبه حدثنا أبو بكر محمد بن حميد قال حدثنا هارون بن يوسف بن زياد قال حدثنا محمد بن أبي عمر حدثنا محمد بن جعفر قال أشهد على أبي حدثني عن أبيه عن جده عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خرجت من نكاح ولم أخرج من سفاح من لدن آدم إلى أن ولدني إلى أن ولدني أبي وأمي لم يصبني من سفاح الجاهلية شيء bunti ngëneel yi nga xam ne yàlla jox na ko yonantu bi ci askanam ak fi mbokk ay baayam ak ay yaayam ak ni leen yàlla laabalee dale ci aadama ba ci fi mu juddoo moom sallallahu alayhi wa solo nañ jëlee ci sidna ali ibn abi talibin radiallahu anhu mu ne yonantu bi sallallahu alayhi wa sallam moo wax ne man ci sëy rek laa mas a génnee musuma génnee ci njaaloo maanaam daa iman rek ñiy nekk baayam ci jamono ju nekk baayam ak yaayam ci sëy lañuy nekk ca aadama ba fi ko abdullahi ak aminatu jure nee mësta génn ci njaaloo yi réer yi arab yi nekkoon nga xam ne daawuñ juddu ci sëy daawuñ juddu ci dara moom nag yàlla tànnal na ko ay ndiggi baay yu baax ak ay roxom yaay yu baax commencé ci aadama ba fi mu ñëwee moom yonent bi sallallahu alayhi wa sallam te benn jafe-jafe nekkut ci loolu ndax jamono ju nekk yàlla am na juróom-ñaar ñu mu bind ñoo xam ne ñoo tax muy taw ñoo tax muy yërëm bindee fi kon jombewut bàyyi yonent bi ak yaayam jamono ju nekk ñu bokk ci juróom-ñaar ñooñu nga xam ne yàlla leen tànn ba ba muy judd moom sallallahu alayhi wa sallam xadatanaa mohamad bnu suleyman alhaachimiyu qaala xadatanaa ahmad bnu mohamad bni saidin almarwazi qaala xadatanaa mohamad bnu abdillah xadatani anas bnu mohammadin qaala xadatanaa muusa bnu isa qaala xadatanaa yazid bnu abi xakimin an ikrimata an ibni abbasin qaala qaala rasulullahi qaala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam lam yaltaqi abawaaya fi sifaaxin lam yazal illaahu azza wa jalla yanquluni min aslaabin tayibatin ila arxaamin taahiratin saafiyan muhadaban laa tatashaabu shucbataani illa kuntu fi xayrihima solo nañ jëlee ci abdullah ibnu abbas radiallahu anhuma mu ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallama moo wax ne su may ñaari baay ma suñoo tase ci njàllo yàlla dañut di ma toxal ma jëlee ci ay ndigg yu teey jëm ci ay roxam yu teey yu set yu sellal mu ne ñaari kuréel kuréel du am mukk ci àddina lu may rek moom ca bëgg na baax la bokk waxtu wu nekk am na kuréel boo xam ne kuréel yi rahmaan la waxtu wu nekk mu ngi am kuréel boo xam ne itam kuréel yi seytaan la ci aadama ba léegi waaye nag mu ne ñaari kuréel yooyu waxtu wu ñu amee itam moom ca ba gën a baax rek ca la bokk sallallahu alayhi wa sallam حدثنا أبو بحر محمد بن الحسن بن كوثر قال حدثنا محمد بن سليمان بن الحارث حدثنا عبيد الله بن موسى حدثنا إسماعيل بن أبي خالد عن يزيد بن أبي زياد عن عبد الله بن الحارث بن نوفل عن العباس بن عبد المطلب قال قلت يا رسول الله إن قريشا جلسوا فتذاكروا أحسابهم وأنسابهم فجعلوا مثلك مثل نخلة نبتت في ربوة من الأرض قال فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال إن الله عز وجل حين خلق الخلق جعلني من خير خلقه ثم حين خلق القبائل جعلني من خير قبيلتهم وحين خلق الأنفس جعلني من خير أنفسهم ثم حين خلق البيوت جعلني من خير بيوتهم فأنا خيرهم أبا وخيرهم نفسا solo nañ jëlee ci abbas ibn abdul muttalib bàyyi la ci yonent bi sallallahu alayhi mu ne moom abbas dafa wax yonent bi ne ko yow yonent yàlla Quraysh dañoo toogoon di fàttaliyante seen baax baax yi askan yeeg seen cosaan yi mu ne ñu def yonent bi mu mel ni benn tàndarma su ndaw bu sax ci kaw xeer wu mag ci suuf da Abbaas waxee yonent bi loolu ne ko noonu la la Quraysh jàppee bi ñuy wax mu ne yonent bi mer sallallahu alayhi wa ne yàlla ak màggaayam bi mbindee mbindee fi def na mam ma gën ci mbindee fi bi mu bindee itam xeet yi def na ma ma bokk ci xeet bi gën ci xeet yi bi mu bindee bakkan yi itam def na ma ma gën bakkan yépp ba mu bindee néeg yi def na néeg bi ma bokk mu gën néeg yëpp mu ne moom mu ngi doon sallallahu alayhi wa mu ne man maa leen gën bàyyi maa leen gën itam askan sallallahu alayhi wa xaddasanaa abu bahrin muhammad bnu alxasan qaala xaddasanaa muhammad bnu gaalibin qaala xaddasanaa alxasan bnu bishrin xaddasanaa sacdaan bnu alwaliidi an cataa'in an ibni abbaasin wa taqallubuka fi saaji wa taqallubaka fi saajidiina maa zaala annabiyu sala allahu alayhi wa sallama yataqallabu fi aslaabi alambiyaai xatta waladathu ummu jëlee nañ ci abdullah ibnu abbas mu ne laay yàlla wax ne wa taqallubuka saajidin maanaam daa la toxal ci ndigg góor yoo xam ne dañuy sujjóot maanaam góor yu sujjóot nag mooy góor yu gëm yàlla mu ne yonent bi dañut di wëlbatiku ci ndiggi yonent yi tey kii jur ko ëllëg kële jur ko waaye ñépp ay yonantu lañuy nekk ñu yàlla tànn ne dañut di jàllantu ci ndiggi góor yi ndiggi yonant yi ba yaayam jur ko moom aminatu sallallahu alayhi wa sallam حدثنا علي بن هارون حدثنا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز قال حدثنا أخمسي المقدام حدثنا حماد بن واقد الصفار قال حدثنا محمد بن ذكوان عن عمرو بن دينار عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل خلق السماوات سبعا فاختار العليا منها فسكنها وأسكن سائر سماواته من شاء من خلقه وخلق الأرضين سبعا فاختار العليا منها فأسكنها من شاء من خلقه ثم خلق الخلق فاختار من الخلق بني آدم واختار من بني آدم العرب واختار من العرب مضر واختار من مضر قريشا من بني هاشم واختارني من بني هاشم فأنا من خيار إلى خيار من أحب العرب فبحبي أحبهم ومن أبغض العرب فببغضي أبغضهم solo nañ jëlee ci ibnu umar radiallahu anhuma mu ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo wax ne yàlla borom jomblu gi ak màggaayam moom yàlla moo bind dafa bind asamaan yi ñuy juróom-ñaari asamaan mu tànn ba ci gën a kawe dëkkee ko di des ci asamaan yëpp mu dëkkal ci ñu ko neex ci ay jaamam mu ne daal bind suuf si muy juróom-ñaar ba tey mu ne mu tànn ba ci gën a kawe dëkkal fa ñu ko neex ci ay jaamam mu ne daal bind mbindeef yi tànn ci ñoom doomi adama yi ba mu bindee mbindeef yépp doomu aadama yi la tànn ñoo ko ci gënal mu ne daal tànn ci doomu aadama yi giir gu ñuy wax arab mu ne tànn itam ci giit ak arab askan wu ñuy wax mudar mu tànn ci askan woowu itam quraish quraish itam mu tànn ci ñoom askani bani hashim mu ne nag tànn ma moom yonent bi mooy wax mu tànn ma ci bani hashim mu ne man maay luñ tànn ma jëm ci luñ tànn li yàlla bind yépp la ca gën lam ca gën a fonk foofu rek la yonent bi di bokk sallallahu alayhi wa sallam di wàcc di wàcc ba ci bani hashim mu ne nag moom mooy luñ tànn mu jëm ci luñ tànn mu ne képp ku bugg arab yi bugguma moo tax nga bugg leen ku leen bañ itam bañ ma moo tax nga bañ leen sallallahu alayhi wa sallam الفصل الثالث في ذكر فضيلته صلى الله mu وسلم بأسمائه حدثنا محمد بن أحمد قال حدثنا بشر بن موسى قال حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثنا الزهري قال أخبرني محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه قال قال قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لي أسماء أنا محمد وأنا أحمد وأنا الماحي الذي يمحى بي الكفر وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي وأنا العاقب الذي لا نبي بعده solo nañ jëlee ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu ne am na fa yàlla ay tur mu ne man maay Muhammad maay xaashiru mi nga xam ne ci moom la ñuy fange jaam ñëpp maay maaxi mi nga xam ne ci man la ñuy fare kéefër waaye maaxe mi nga xam ne ci moom la ñuy fare kéefër ci ci man lañuy fare kéefër mu ne man maay xaasiru mi nga xam ne itam ci suma ron lañuy ñuy fange mboolem jaam yi suma ron tànk man maay aaqibu mi nga xam ne itam benn yonentu amul gannaaw sallallahu alayhi حدثنا محمد بن عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن عمر بن أبان قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم التيمي حدثنا سيف بن وهب عن أبي الطفيل قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لي عند ربي عشرة أسماء قال أبو الطفيل حفظت منها ثمانية محمد وأحمد وأبو القاسم والفاتح والخاتم والعاقب والحاشر والماحي قال أبو يحيى وزعم سيف وزعم سيف أن أبا جعفر قال له إن الاسمين الباقيين طه وياسين سولنا جلتي أبي طفيل من ينتبه صلى الله عليه وسلم ما وحنا من أمنا ci suma borom fukki tur Abu Tufayl mu ne mokal naa ci juróom-ñett mu ne yonent bi mooy muhammad mooy ahmadu mooy abul qasim mooy alfatih mooy alxaatim mooy alaqib mooy itam al ashiru mooy almaahi solokati xadis bi nag mu ne abu jaafar dafa wax jortu na ne ñaari tur yu des di ko mottali muy fukk taaxa lay nekk ak yaasin hmm? alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah